waaw man dafa dama yàlla dama baax ma nekkoon ci ñaari commission euh, commission bi nga xam ni moom mooy la commission du processus électoral maanaam moo tëxëj lépp nga xam moo amoon ay sooxe sooxe ak yoo xam ni vraiment dañoo toog di ko di ko ŋaytu mooy ñuy téye ñuy jël leen demeen beneen bi nag boobu nag moo doon wax nag ban ban ban diir dañoo war a xalaat euh, bu ñu ko joxee maanaam euh, falin bi élection yi dina mën a jàll. Euh, ci anam nu mu gën a baaxee nu mu gën a sellee jàmm boobu nag boobu ñoom je crois moom la ministre euh, Sidi Kaba maanaam jiite woon waaw beneen bi nag waaw moo doon 2 avril bu amee lan moo ci xam parce que 2 avril fekk président man mandat mandat euh, candidat sortant loolu musul am parce que d'habitude loxo loxo kii mu naan pare jox leen ngay kenn mais bii day fekk élection yaakaar ñu ñaari avril 2 avril du mën a nekk. waaw bu ñu xoolee daal gàllankoor yi nga xam ni vraiment moo ci laxas et jàpp nañu finalement que 2 juin la ñuy jàpp daal mais ñun amuñu ñu ngi ndogal dañoo xalaat ne loolu mooy gën ndax yaakaar ne ñu tamit ñun dukki diine la ñu suñu mbokk waa jàngu bi ñoom amal nañu seen woor euh, ñun tamit maanaam njabootu jullit yi euh, ci diir bu gàtt mois de mars daa ngi def seen koor yaakaar ni campagne bi muy ànd ay sabar ay tëgg ak ay yuuxu njaay ni mun muñ loolu parce que foo ñu lekk du dëgg donc loolu la ñu mujj a jàpp xool ni léegi xew-xew yi nga xam ne si loolu suñu cosaan loolu la ñu xam te comme CEDEAO nee na ngeen waxtaan te dialogue moom la ñu xam mooy suñu cosaan waxtaan xalaat kon ci tànk yooyu la ñuy doxee ba nga xam ni 2 euh, juin bi nga xam ne mu ne maanaam weeru juin bu ñëwee ba am ñaari fan yaakaar naa ñi moom loolu daañu ko mën a def woor bi dina nekk si ginnaaw muy waa jàng bi suñu mbokk maanaam catholique yi ñun tamit dina fekk tamit ñu jóge ci loolu tabaski ñëwaat tamit ba ñu weesu tabaski yaakaar naa ne su boobaa euh, ngi nekk maanaam euh, ci jamono joo xam ni lépp daañu ko ñu def ci jàmm ak sell euh, nit ñi mën a dox seen dox ba jàmm am daal comme ni mu mel ni ci phase transition bi dañoo convoqué article 36 ndax mën nga ñu wax article boobu lan lay wax. waa xam nga li ñuy wax rek xam nga loi moom ay nit rek ñoo koy defar. li ñuy wax rek loi moom waa askan bi la muy assemblée député yi mënu jóge ci ñoom mënu jóge ci président la république te am nag tey maanaam euh, loo xam ni musul am daal waaw mais na nekk jàmm rek daal waaw parce que conseil prévoir lu nekk boo tëlee jàngoro jàpp la yow sa wàllu bopp nga démissionné ñetteel ba tamit euh, yàlla tere yàlla jëlee la fi mais loolu yëpp sant yàlla fekkuñu fi kii dafa newoon maanaam président Macky Sall ñu fal ko ba deux mille dix neuf ah deux mille deux deux mille dix neuf ñoom ñu falaat ko encore léegi nag nag mi ngi jeex maanaam ayem mi ngi jeex 2 euh, avril bi du mu gën a gàtt gàtt mun a joxe léegi ki nga xam moo ko wut waaye ren yàlla dafa def euh, ba nga xam ni loolu mënul nekk léegi nañu xalaat léegi lan la ñu mën a def pour mën a euh, maanaam bañ a léegi xool nañu affaire bi nga xam ne mooy li ma wax léegi bu dee président dafa tële jàngoro mu bàyyil boppam muy démission wala yàlla jëlee ko newuñ ci kaabo benn bi nga xam ne moom la ñuy xalaat ci la ñuy waxtaan maa ko maa ko sax soñ muy article 36 alinéa 2 bi bu wax ni nga président bi nga xam ne moo fi newoon moom bu pare day nekk maanaam toog ku jox leng keneen ki foofu la mandaam bi jeex waaye yoon daf ne moom day nekk maam dafa liggéey parce que état tamit kër sax laa la boo koy jël di dem sax tamit am na ay anam yoo koy defee loolu moo tax ñoom ñu ne léegi président bi nga xam ne maanaam Conté président bu doon newoon ak ki nga xam ne mooy ñëw ñoo ko daan joxante waaye bii loolu amul ci jeexal na depuis 2 avril te jàpp ñu maanaam fal gi mi ngi nekk mois de juin maanaam ñu nag ay nit lañu nit nag mooy xalaat xalaat bi ñu xalaat moom mooy que léegi. ñu fexe ba nga xam ni président bi ci boppam daañu jéem wax ba nga xam ni ñuy waxee loi bi que ki nga xam ni moom moo fi newoon day toog doxal ba ki nga xam ni moo war a ñëw te am na ñu wax naan non non loolu bu ñu koy waxee day fekk ki fi newoon ak ki fi dem mais loolu élection amul mais yaakaar ni loi boo koy voté wala boo koy appliqué juge bi da koy àtte àtte boo xam ni mooy gën a indi jàmm ah gën a indi dal te la mën na ci nekk yaakaar naa ni. président moom leen moom dafa doyal sax dèjà waaye nag état dafa nekk loo xam ne du caaxaan du dëgg mu ñu bàyyi rek état bu doon tey article bi bi la ñu waxoon 34 bi nga xam ne président assemblée kon mooy ñëw bu doon ci yeneen fànn yi ñu ne woon président bi yàlla tere mu mu tële yàlla na yéex yàlla jëlee ko wala mu bàyyil boppam ba président assemblée mooy ñëw ci su boobaa sax ñetti weer lay def kon yaakaar ne da gërëm génnul gaal gi bu doon tey président assemblée moo ko remplacé dina am ñetti weer pour mën a. yore maanaam lenge yi wutu président ba ñetti weer yu jot kon boo ko doon xalaat loolu loolu moo tax ginnaaw nag li nga xam ne moo nekk suñu kanam yaakaar naa ni daañu ci mën a am maanaam euh, mën a nangu loolu daal jàmm am daal parce que jàmm Sénégal jàmm moo fi am jàmm ci la lépp xaj jërëjëf mu nekkoon euh, maître euh, Djibril War ni mu ko waxee jàmm rek ci la lépp xaj moo tax ñu dal di décider jël ki nga xamante ne moom moo jiitu réew bi ñu bàyyi ko ci bopp réew mi fii ak le 2 juin en attendant ñu koy trouver un remplaçant waaye ñu bàyyi ko bopp réew mi noonee rek te du am keneen koo xam ne moom moo koy yore.